réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. voilà mbokk patriote yi gis ngeen ko euh, li nga xam ne moom mooy communiqué bi nga xam ne kii di Birame Souleye Diop def na ko gis ngeen li nga xam ne itam wax na ko ci euh, gis ngeen itam point de presse bi nga xam ni euh, procureur bi def na ko gis ngeen haine bi nga xam ni itam am na ko ci Ousmane ko ak euh, ni mu doon waxee contre jëmm ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko euh, ku nekk rek mën nga ci euh, defal sa bopp propre jàngat ñii fan lañ nar a jëm ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko gis ngeen ni procureur bi waxee kii dañ koy defeere mel ni kuy di kuy waxee ak li nga xam ne moom moo di xol ba pare gis ngeen li nga xam ne moom nee lañu woon moom la ñuy toppee Ousmane Sonko jëlum téléphone jàmbur ak woote finna dem nañ bu ci biir bu ko toppee li nga xam ne moo xewoon depuis ah, deux mille vingt et ba tey te ku nekk xam nga deux mille vingt et la fa xewoon nam demee ak la amoon lan moo ko waral euh, buñ ñëwee ba léegi bëgg jël tuuma yooyu yëpp gàll ko ci ndodd ki nga xam ne moom moo di Sonko ah, dina yéeme trop mais lu mu ci doon rek jàpp naa ne sénégalais yi ñoom xanaa duñu seetaan euh, li nga xam ni moom lañ jotoon di xeex euh, depuis. Euh, deux mille vingt et ba léegi ñu bàyyi ba nga xam ni presque euh, ñu ngi si li nga xam ne moom moo di cëppaandaw bi euh, desul dul ñu jël seen desin en mais ñu daal di bàyyi lépp ak ñi nga xam ni peut-être ay at ngi nii ñu lay xeex ngir jële leen fi tey lañ doon xeex lépp ak bakkan yi nga xam ne rotoon na si yëpp ak ñi nga xam ne jotoon nañ si am ay gaañu gaañu yëpp xeex boobu daal di nax saay ñi nga xam ne ñoom ñoo continuer woon di boom ak di buum di buum mi continuer ba tey di buum di buum mi ah loolu kenn ku ci nekk eh, am nga ci sa propre responsabilité en tout cas li ñu leen mën a xamal mooy Ousmane Sonko moom lépp loo xam ni li ko waroon la def na ko kon leneen li ci des nag mooy ñi nga xam ne moom moom ñoo taxoon muy def li mu doon def ba li fekk ko ci ñooñu lan la ñuy def pour Ousmane Sonko jërë ngeen jëf mbokk yi.